nu bëgg bëgg na la ànd ak yow waaye lu tedd day waral ak tedd tawet lu jëm kaw day fegal ay yedd bisu xasiida yi jañal ñu bépp lor ñoddil ñu ay xéewal fayal ñu bépp bor Seex Amsa saahibu tabdiini faaqa jamii al jiili fi tabdiini Seex Amsa Mbàkke saahibu tabdiini